Chérif li ci yéen kaay yi dañu koy doore ak l'observateur jërëjëf Fatou ñu tàmbale koog l'observateur comme ni nga ko waxee daal di jox kàddu gi tey médiateur de la république maître Alioune Badara Cissé kon ngeen gis ko nii moom nag wax na jafe-jafe yi mi jànkoonteeg ca kuréel gën ko dénk di médiateur de la république moo tax kon liggéey ba nam waree sax mënu koo def ndax rek ñàkk ay jumtukaay moom amul daamar goo xam dina mën a dem ak dikk te tamit li koy xaar ci sas dafa bari lool wante nag moom du koo xamante ni rek day ñëw fii di ñaxtu wala muy wax loo xamante daal du naka sodul noonu kon moom médiateur de la république loolu wax tamit yéen kaay wi ñëwaat na ci Famara Ibrahima Sagna mi naan dafa démissionné ci li nga xamante ni kon moom mooy comité de pilotage bu dialogue national bi am déet loolu kon l'Obs daal di ñëw Walfadjri moom daal di ñëw rek ci soxna Aminata Touré ngeen gis ko nii ak président de la République position bi soxna si am ci euh, troisième mandat bi euh, naka la rek la Aminata Touré di piéger Macky Sall euh, ci loolu la Walfadjri daal di wax le soleil national ñëw ci yokkute gi nemmeeku ci cas Covid 19 di mbas mi démb ci conseil des ministres président de la République kon sàkku na rek ñu amalaat yeneen i mesures yu tar ngir rek xeex mbas mi bokk na ci kon dekkalaat centre de traitement des épidémies personnel de bi ñu gën leen a Euh, remobiliser euh, sas leen ñoom it bu ko defee kon ñu mën a xeex mbas mi ak tamit service d'urgence yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllu euh, réanimation ñu gën ko renforcer ñu wax ci libération ak euh, mbuxum mi nga xamante ne meeku nañ ko ca direction des domaines kii nag ab controleur des impôts et des la euh, spécialiste dans le banditisme foncier ndax moom sëñ jàmmee gis nga ko moom moo jiite woon rek benn piste boo xamante wàllu mafia la ba tax na kon ay opérateur économique ca Ngor ak yu ni daal yooyu lépp euh, am na yoo xamante ni nax nañ leen ci quatre cent millions yoo xamante ni kon moom moo waral coow li ba tax na kon moom Babacar Dia dem na ca Ndungu Siin moom ak ñi ko doon jàppale rek di ñetti contrôleur ya les échos ñëw ci wàllu escroquerie yi ak li nga xamante ni kon moom mooy ay documents administratifs moom euh, contrôleur des impôts boobu moom it mi nga xamante da doon imiter signature Mame Boye Diaw mi directeur des domaines kon yóbbu nañ ko ca kaso ba Babacar ja ak juróomi complice la ñoom dem nañ ca kaso Ndeye Penda ña ngi ci la bokk moom it ñi ngi koy wër euh, Khalifa Sall moom it mi ngi yaatal taxawaayam ci opposition boo sàgganul daal xëy na moom mooy pexe mu mën a jàkkaarloo ak majorité bi ñu ñëw ci mbas mi ba léegi ak le quotidien daal di ñëwaat rek ci explosion des cas yi ba tax na kon vague bi daal yokk na ba tax na Macky Sall tamit daal di centre de traitement yi gis nga ni mu nekkee en alerte Macky Sall daal di annoncé yeneen mesure ngir rek daal di xeex mbas mi Antoine Diome moom nee na déet acteurs culturels yi nga xamante ni dañoo bëggoon ñu ubbi leen seen i barab yooyu acteurs culturels ñi ngi ci jafe-jafe ci enquête nga gis ko noonu Malal Talla Fou Malade Wally Seck Pape Diouf ñoom ñii yëpp ak waykat yi daal ñi ngi ci jafe-jafe boo saaganul ñoom it moo tax waral fipp gi seen biir kii di Famara Ibrahima Sagna moom it wax na ci laas daal di ñëw ci li nga xamante ni moom mooy ñin nemmeeku ñi la xew fële nga xamante ni moom mooy ca Kolda ñi jàppe seen bopp ay yonent mu mel ni phénomène bu bees la te dara amu ci ba tax na kon Jibi Jaxate ak Imam kante joxe nañ seen xalaat Imam Kanté moom li koy yéem mooy kilifa diine yi nin ci noppee ci mbir moomu ñu wax ba léegi rek ak vox populi ak euh, fawukaay gone yi nga xamante ni alcool da cee nekk loolu nag euh, tax na ñu jàpp leen ngeen gis ko noonu photo bi analyse bi nga xamante tamit euh, produit def nañ ko ci wàllu laboratoire moom moo wane daal mbir mi xaw naa am sàngara ci biir. source a moom it gis nga ko noonu ñëwaat rek ci mbiram culture ak ñaari milliards yi nga xamante ni daal dañ koo jagleeloon ñii di acteurs culturels yi ci fond force Covid 19 mais daf ne mër kenn gisu ko xiiroo am nag ak ngaayoo ci diggante jëwriñ ji dénk koom-koom bi di Abdoulaye Daouda Diallo ak jëwriñ euh, collègue am bi di Abdoulaye Diop ku ci nekk daal yaa ngi naan fan la koppar yooyu dugg le thème mooy ñëw ci jafe-jafe yi nemmeeku ci campagne arachidière bi rawatina rek waa Sonacos nga xamante ni daal buñ ci waxut dana naax saay jot ci googee gerte la tribune ñëw ci réflexion bi nga xamante ni daal mooy front opposition bi ñoom kuje gi dañuy ànd wala rek ñu daal di fiy jugee ndax ñin jàkkaarloog dafa mel ni ñoom it ay borom yi doole leen ba nga gis ko noonu kon ñaari wàll yi ku ci nekk kon yaa ngi am taxawaay ñu ñëw ba léegi ci li nga xamante ne moom mooy Sud Quotidien ak tamit euh, Macky Sall ak euh, ni mu taxawee ci ville de Dakar fi mu jugee ba léegi caisse d'avance ga ak euh, ni ñu ko fi jëlee ak ba ci nomination maire bi boroom xam-xam bi di Serigne caam joxe na ci xalaatam enseignant chercheur la ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu jeexale ko ak journaux sportifs yeeg record Sadio Mané nga gis kon noonu démb daal ñoom ñoom mujj a gañe kon ñii di waa Tottenham jëm kon ci Premier League ak tamit eh, gis nga ko ne the best trophée baa ngi nii ñett ñi ñoo koy xëccoo tey ñu xam kan moo ci gën a xarañ ci anam 2020 bi diggante Lewandowski mi nga xamante ni kon ma nga ci Bayern Dominique ak ñaar ñi xëy na kon eh, dafa mel ni daal eh, Lewandowski moo ëpp chance Ronaldo ak Messi ngir jël boobee raaya ñu jeexale ko ak sunu làmb Ama Baldé Siteu duel bad boy yi mu mel ni ku ci nekk tamit am nga ay chiffres ak wàllu statistique ci taxawaay ba tax na kon sunu làmb daal di ciy ñëwaat ci ca nëm gën yaatoo ñoom ñaari ñooñ nag ay mbër yu siiw lañ fàtti ca banlieue ba. merci beaucoup Chérif ci li ci yenne kaay yi 7 trent 38 presque 39 fii ak ay secondes daañu dem euh, RFM fekki Babacar Fall aw Signaté am nañu mbégte di la dalal aw Kambe. Euh, Fatick Kambé très prochainement. ci info du matin ci info du matin. pour beneen euh, thème ci rubrique santé. très bien aussi euh, boobu mooy ban. <laughs> mooy ba bien à bientôt. Fatou la. <laughs> parce que lu gën a metti si àddina moom mooy nandite nand nand lu moo ma xaw a rey. bàyyi kon ma wax initié ini ini baraaji <laughs> Awa Signaté vraiment ah j'adore la culture Mandeng man parce que voilà c'est une culture très très très riche c'est un plaisir di dalal euh, Awa su sunu euh, concert nekk fii euh, ci groupe Futur Média li mu indi am na solo RFM matin Babacar Fall ak ganam